di di génne yenn affaire yi nga xamante ni ça ne marche pas gisatuñ la déggatuñ la depuis seen élection yi lan moo waral retrait boobu noonu nga def ci basket bi. lu ko waral euh, c'est beaucoup de choses d'abord je euh, dis ça de parler parce que euh, en parlant on n'a aucun résultat benn mais surtout que le basket est mënatoo ci dara il est mort non c'est pas que mën naa si dara dama ne basket bi dee na ba pare Babacar Ndiaye fait ce qu'il veut avec ce basket maintenant on le regarde c'est a confié ce basket maintenant nag maintenant on le regarde et l'État c'est dommage tout simplement man su su ma ciy wax euh, il faut que les gens comprennent lan moo ma motivé c'est tout simplement parce que je l'ai dit avant le début de votre le basket m'a fabriqué parce que nee naa la tey li ma doon tey Sénégal et je vais dire pourquoi aussi je me en retrait du mhm. basket je vais vous dire y a y a un autre motif beaucoup plus grand c'est si ñëw xaar leen rek euh, ma joxe suma raisonnement di tax ma daan wax si basket mu ci xuloo di si xeex parce que tout simplement le basket m'a apporté toutes les satisfactions aujourd'hui tey su ma nekkee tey kilifa dans ce pays là nekk un chef d'entreprise nekk euh, euh, nekk ku ñu ràññee oui mais Amin yaa rabbi <laughs> Amin boo ko waxee moom Amin pourquoi pas je le refuse pas si si jamais euh, bu ñëwee si gémmiñ yàlla na barket alors euh, ku ñu ràññee si dëkk bi parce que Kajoor si sa mu ngi c'est un ancien d'un d'un d'un d'un truc j'ai créé de toutes pièces c'est-à-dire que je suis je me suis engouffré dans la presse et j'ai développé la presse j'ai été un précurseur de la presse. Mm-hmm. parce que bi may dugg ci presse fii euh, à partir de mon journal que j'ai créé def ci suma xaalis le matin après ñoo boot ci Baratal ñoo boot ci Youssou Ndour mm-hmm. ñoo boot ci Cheikh Tall Dioum ñi nga boot a bëri mm-hmm. ñu dem ba ci biir affaire bi nekk tous les malais vraiment journal bi am si tout le monde se la question commentant Tandian a après ñu dem malheureusement ñu tas mais tas boobu nag eh bien ça a créé justement la floraison de la presse. Youssou Ndour dem créer l'Observateur créer RFM créer TFM Baratal dem créer Populaire ainsi de suite ainsi et aujourd'hui ñëpp am fit dugg ci presse mais avant bi ma koy créer le matin on était que trois il y avait Sud Walf Soleil ñett yi rek fa nekkoon. donc ce qui fait que moi à l'époque d'ailleurs c'est là qu'Abdou Diouf m'a appelé m'a félicité et m'a décoré pour la première fois ah officier de l'ordre national du Lion. et j'ai eu la chance d'être décoré par trois présidents loolu moom waral ma takk sama moo waral ma takk sama boutonnière bi mhm. ah euh, Abdou Diouf gën mag wala je pense bi du gënul mag bii wala amul boutonnière boutonnière bi waaw ndax gënul mag laa wax. nii lay toll. ok d'accord <laughs> nii gënee mag fii doo doo ko a gàddu donc euh, Abdou Diouf ma euh, def ma officier de l'ordre national du Lion. Ablaye Wade ñëw def ma grand officier de l'ordre national du mérite Macky Sall ñëw def ma grand croix de l'ordre national du mérite loolu moom mooy boutonnière bi. Mm-hmm. c'est-à-dire que je suis au sommet de la décoration euh, euh, de la République loolu nag dama ciy sant yàlla tout simplement parce que être décoré par trois présidents je ne crois pas qu'un sportif l'a eu je ne crois pas moi je l'ai eu loolu c'est une chance bu réalisé te loolu moo taxoon na soo gis basket bi ma ciy sonn ak sport bi ma ciy économiquement aussi ce que j'ai apporté dans ce pays loolu moo waral aujourd'hui bon basket ba si sori parce que basket moom permetre ma ma am ma am ma lii yëpp. Mhm. donc loolu la. waaw léegi lu tax nga. Euh, lu tax ma xaw a reculer parce que tout simplement dama gis que su ma cooki bi may cooki fële du jëriñ dara. parce que Babacar Ndiaye fël day day def day dee deelu rek euh, buy dox buy di ku gëlëm muy dox et tout ça machin ba pare def ay njaaxum ay tuuxu duunam foofu dañ koy bàyyi léegi ak tuuxu duunam. Parce que tout simplement, je suis engagé maintenant dans un processus économique qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Je suis de monter une usine euh, d'emballage, une première en Afrique de l'Ouest, qui m'a coûté pas loin de 3 milliards et demi. Dama leb xaalis aux banques et à l'étranger, des banques étrangères européennes, pour monter cette usine-là. On ne fait pas du tout la même chose. Ah, ok. On fait pas du tout la même chose. faut pas du tout la même chose donc moi ce que je suis de monter j'ai construit sur un terrain de 5000 mètres carrés à Diamniadio j'ai construit c'est fini d'ailleurs je démarre la production à partir de la semaine prochaine donc ce n'est que ça rek loolu déjà dafa ubboon sama bopp parce que aussi boo lebee xaalis jàmbur il faut savoir il faut travailler pour rembourser sinon euh, la nga la nga tayle woon foofu yëpp parce que j'ai quand même mis des garanties et tout ça bon patrimoine mais la nga tayle foofu yëpp dañ koy ñëw nangu et puis là tu es tu es tu, donc voilà loolu nag tax na que vraiment amatuma jotu Euh, Babacar Ndiaye amatuma jotu basket basket bi gis nga Marie Ndiaye sax du ma fa teg tànk. alors voilà mais par contre jure j'irai euh, à début de saison dem jàppale mon ami Pathé voilà.